ci biir réew mi rawat na bitim réew ñu jëm si événement bu mag euh, muy le 28 mais bala ñu ñëw si le 28 dañ koy bàyyi mu nuyoo euh, ak mbokki internet yi après ñu ñëw si waxtaan bi ñu ngi lay nuyu. dama ne maa ngi di bu baax SBT Media di kontaan lool ci teewaay bi ah. vraiment di nuyu Sénégal gépp surtout kilifa diine yi sama yaay bu baax aji daaru mbay di ñaanal sama baay alaaji Beseng yàlla na suuf oyof lool ci koom di nuyu bu baax njiitu réew mi nag muy suñu président Macky ñu jabaram bu baax boobu madame Faye Sall di wax naan yàlla na jàmm yàgg ci réew mi waaw. jàmm yàgg ci réew mi amin euh, di nuyu ki nga xam si ni moom mooy Malick euh, di ko jox wàccuwaayam baax di nuyu nag mbokki internet yëpp rawat na waa diaspora bi nga xam ne dañu bàyyi xel SBT di ko wétali ko ci ji nga xam si ne nii euh, dëkk bi activité yu bëri taxaw na tey Baye Demba lan seet mais ci lu gàtt rek boo doon xamalee ak Baye Demba ak virus bi nga xam si ni ginnaaw bi nga xam si da nga am ndono si li nga xam si ni moom ngay def maanaam am nga yeneen activité yoo xam si ni bi nga nekk xale doon nga ko def amaana lu bokkut ak li nga xam si moom mooy moom mooy tëgg bi ak way bi nga xam ne yaa ngi koy def waaw tey baay demb xam nga dey doomu Medina hmm? juddoo Medina yaroo Fass doon géwal teg ci fier lool ci li ma doon ndax mooy li may wax de xam nga jaar jaaru ndaw moom euh, ñun doon fo bi nekkee xale yi ndax sunu xol fa la njëkk a tojee moo tax xam nga yenn yi yenn yi pour nga dugal nu ci daal. du yomb après ñu xam ki ñu doon nag ah, teg ci doon doomi réew bi doon bat géwal koo koy bay dem ba am mag ju am valeur muy Mbaye Dièye hmm, mu def ci ñun aar tey nee naa bu ma ñemee ba ne ci kaw seen imposé wu kooko ci mbay laa ko jëlee naka ah, doon doon doon doon nag caat caatu seng-seng juddoo Medina yaroo Faas fo nag ndax dawal na nu mbege dawal nañu pono lu ne daal def nañ ko waaw kon jaar-jaar baa ngi noonu. est que am na beneen métier bu bokkut ak euh, tëgg ak ak taas yi nga xam ne moom lay def. ñun nag mooy li ma wax rek yàlla moom euh, bi muy bind doomu aadama jaam new fa tey danoo màgg fekkee lii ñu nekk ci nag mu yóbbu nu fu ne. ci lii nag mooy suñu liggéey ndax leneen ndax bu ñu duggee ci leneen rek dañ koy jéem rek waaye duñ ci sori lii nag ci lañu borom bu xiir te doonul lu bon nag waaw ñu ci yor nañ ci suñuy doom ba yor ci suñuy soxna. ñëpp àdduna wër nga képp xam na ne macha allah ah, yéen a ciy liggéey liggéey bu am solo mais fi li ma bëgg ñu xam rek mooy ndax Baye Demba jaan si téere wala mécanicien wala menuisier ah, wala yu mel noonu saa dëkk loolu laa bëgg. Baye Baye fi mu jaar mooy école des man école des arts laa jaar jàng fa jàng fa li ñuy wax naan solfège ci musique man dama jaar école des arts foofu daal laa jaar leneen nag moom waaw mooy loolu mais man école des arts laa jaar. SBT mhm. Média seen émission nay riir ñu dalal ki nga xam si moom mooy dem ba léegi ñu arrêté tuuti si ginnaaw euh, di ñaan suñu borom xaar leen aljanna mboolem suñu way dawlu yëpp euh, ku si mel sa wajur suñu maam Euh, alaaji Wesseng fay ak alaaji Doudou Ndiaye Koumbaros ak mbooleem daanaan ñi nga xam si ni ñi ngi woon ci réew mi àdduna daa leen bàyyi xel te ñu jiitu di ñaan suñu borom yërëm leen te xaar na ak àjjana yu kawe ya ak mbooleem ña leen fay fekk ñëpp ci barke yonent bi mais ñu arrêté tuuti si euh, Ndongo sa diggante ak Ndongo Lo euh, naka ngeen xamante woon ba ànd ci li nga xam moom mooy groupe jàmm waaw Ndongo ñi nga xamante mooy comme ni ma koy waxee rek Ndongo bi ñuy xamante ñi ngi xamante ci simba muy mu dem wayal Pam Ngom lool Yves Niang mooy ndongo di aaw mu yoroon voix bu garaaw boo xam ni xam nga ñoom ñu dem daje gël tàppe bari na ay Liberté 6 dem daje euh, Rue onze fépp lan dem daje après foofu nag ci la xamante bi mu bëggoon Menga Menga mi ngi dëkkoon fii ndam si yàlla si moom it mënoon a way tey ñi ñoom papa xam na li may wax ndax ñoo dëkk. bëggoon mu foofu la foofu la daal xamante bi daal xam nga après bu ñu demee ba ci simb bi pam ngoom damay woo ma dugg jël sabar yi tëgg foofu noo nga gis ma xam nga relation bi di daw ñu dem daje cosaan yu sudisee maag moom ñu ne ci suuf yu sudisee ba mu yàgg mun a mbéy jéey incha allah bu ma amee groupe bàyyi dem moo may tëggal foofu nag fa la xamante bi di dem di dem di dem di dem di dem di dem ba benn jour mu woo ma nag jiili woo ma na xam nga benn samedi ne ma tey il nga jouer ak Ndongo waaw boobu Pikine la woon mu dugg ci biir soire ba nag toj ko foofu nag xamel bi nag ci la dem bay yàlla def li muy def tey bu nu ma saanaan na maag moom tourné Ndongo yére bi may sol Ndongo moom la dem sol bu ma simee ma sol bu simee ma sol ñu dem bokk néeg ànd boobu doonoon dëgg nag comme li mu daan wax naay naay comme ni Youssou Youssou Ndour may mel ak Mbaye Dièye mu bëggoon loolu ba loolu ba loolu demoon ba sax ñu dem ba ci biir nag ma dem tëgg ma ne ma il ngay imposer wu nag waaw comme ni mbay ji def Super Étoile ngay tëgg en même temps ngay waxaale loolu loolu poussé ma ci loolu daf ma ci poussé ba mu sax mhm. nongu loo nag. noon ku baax doonoon taalibe Serigne Fallou bëggoon Serigne Fallou lool ak groupe jàmm di leen nuyuwaale di nuyuwaale Pikine ga mu dëkk di ko ñaanal suuf oyof lool ci kawam bëggoon noonu nag mu yàgg fi mais bur yàllay xool li ko neex mu def ko te kenn du xëccëg moom jam jaalo mi si jaaj ma sàmm nee na Fall ko du jeng mu faanu mbee ndongo ma nga tuubaa di nelaw sama waa ji hmm. di ñu invité muy ndaanaan Baye Demba la ah, mais ginnaaw bi nga xam si ni làqu na amoon ngeen yéene am projet wu ah, groupe bi continuer dox ngeen wut beneen lead vocal teg ko si kanam ah, ci projet boobu noonu nangeen dafa def ba projet boobu noonu maanaam fi ngeen ko bëggoon mu àgg fa mujj fa àgg. tey xam nga ndongo li wax naan ndongo macha allah yàlla daka mayoon tey groupe jàmm ñi fa newoon ci ndongo loolu dafa bari après ndongo yi di feeñ. ñi muy xam ndongo ñi mu dem nduro nduro nduroo waale ndongo yeeg amoon na sama benn gaan bu dëkk Cambérène Masseer kooku boo ko gisee bu boo ko gisee bu taxawee ci kaw seen sol mbaxane danga naan ndongo moo taxaw ma koy nuyu bi ñu demee ba ci biir sama rakk bu naa jibi sëy tey moom laa njëkk woow moom day woy comme Ndongo Lo xam nga ñu dem après ñu dem commencé disé ravin ñu dem ñu dem ba ci biir musiciens yi ñii xam nga ñii tukki ñii Angleterre ñii Paris mu dem après ba groupe bi xam nga ñëpp ñëpp dem daal comprendre nga mais bi demee ba ci bi ñu demee ba noo nga génn defoon nañ benn benn morceau ci El Hadj Ndiaye studio ñu dugg ko ci biir defaraat ko mais li yàllay def rek xam nga mais groupe jàmm ba léegi man mën naa ni tasul tey boo leen waawaatoon. Hmm, ñu tëgg suñu répertoire yëpp fan dam jaar fa la ñuy jaar ndax loolu mi ngi fi dañu waaw ah, ñu ngi ñaan nag benn jour di ñaan nag benn jour ñëw xam nga groupe jàmm lépp dajaloo parce que maa ngi ci dem waxtaan ak jiili loolu maa ngi ci dem waxtaan ak jiili te incha allah dina am. waxee musiciens yi ñu fi clavier ñu ngi fi maanaam orchestre bi yëpp ñu ngi fi donc benn problème rek ngeen am mooy problème lead vocal maanaam ku nekk si kanam comme Ndongo Lo ni mu daan ni est am ngeen xale euh, xel dem na si moom koo xam si jàpp ngeen ne bu ngeen ko tegoon ci kanam dina a dina mën a maanaam li public bëgg dina ko mën a def waaw maam Cheikh mi ngi fi maam Cheikh bokk ak Ndongo ndey ak baay muy caat mi ngi fi loolu bu ñuy dem ba koy teg tey dañ ciy waxtaan xëcc ko ci biir am na ñeneen ñun ci invité waale mais moom bu dem def loolu moom la ñuy jiital ndax li ne ci ndongo yëpp mi ngi ci moom waaw dafa tarbiyu euh, mooy li may wax naa li nit ki jàng ak li nit ki donn ah, mënul doon benn ndax ndax li nga nàmpa deret lay doon ci yow comme ni mu ko daan waxee rek ñu ngi ñaan nag benn jour nag loolu am incha allah dina am ay waxtaan la rek. <laughs> jiri de passage di nuyu euh, Yves muy ñaar ñoo xam ne kenn mënul wax ndonga te doo leen tudd muy Yves ak Djily euh, Niang euh, ménagère fanee si ginnaaw dégg nga fi coow li si Djily def fi benn sortie depuis États-Unis maa ngi koy nuyu de yow en tant koo xam si nii xam nga ñooñu ñett ñooñu ñëpp xam nga leen miin nga leen baax ndonga di sa grand ak ñoom Yves ak Djily xam nga leen baax baax donc tey coow loo si judd noonu tey lan nga ñu mën a wax. waaw xam nga coow loolu moom xam nga coow loolu bi mu amee. ba tey sax dugguma ba ci biir sax ba dégg sax li Yves wax hmm? comme sunu waajoon nga xam ni moom la borom bi jël muy nongo mën na gën a rafet daal ah? nit ki bu dëddoo àddina na wax ji rafet mënuma hmm? ci mënuma ci mënuma ci xuus nag ba ci biir li ma ciy wax daal mooy comme nongo dafa dëddoo àdduna daal nit booy wax ci moom daal xam nga na doon lu rafet rek ndax ñoom ñaar la woon ba dara dul dara ah doomu Pikine la Ndongo doomu pikin la Jili doomu pikin la xam nga kon kon kon foofu dara lu ñaaw waru fa am lu rafet rek fa war am moo tax man foofu bu ma ci wax moom lu rafet rek laa ciy wax. Eh. SBT Média la seen émission nay riir di leen wax ne abonné leen ngeen bës seen touche cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen mën si ànd ñun léegi nag ñu ñëw si li nga xam si nii ah, moo waral tey ñu teew fi muy le 28 Baye Demba le 28 lu xew waaw mais le 28 li xew mooy danoo toog 9 mois junjung yëngul te nag li may wax naan firit ma sampee cuukelam muy seng-seng ah jour boobu danoo war a yëngal incha allah muy le 28 novembre hmm? ku baax ku ne ngi ñëw di jàpp ci bés bi hmm? dem ak yéene ndax bés boobu tey Doudou Fall di boroom gaynde ñu jàpp woon bés bi mais comme comme Covid beeg yooyu xam nga feebar bi fi ne ñu ñaan yàlla mu jóge fi moo tax nag moo tax nag ñu jàppaat ko comprendre nga hmm? du gàcc ci bés bi war ci sargal fii ma toog nii nag. Hmm? sama rakk di sama xarit di Kara Moto doomu ndey papalaay ma jël bés bi tuddee ko ko hmm? tey bés bi moom laa ko tuddee doomu ndey lamin Gueye hmm? le 28 daal incha allah ñun waa 5-5 pare nañu ndax for nañu sabar yëpp sabar yu bees tax rythme yu bees tey boo fa ñëwee ak jàmm maa la wax loolu junjung dina riir de. loo dégg luy riir xamal ne waa sañ-sañ la. man li yëpp mooy Baye Demba ak ni nga mel ci réew mi ak ni nga tollu ci réew mi nga jël programme bu toll noonu ne da ngay sargal Pape Doudou Fall sa diggante Pape Doudou Fall lan la. non xam diggante boobu tey dafay diggante boo xam Pape Doudou dafa baax tey bi muy njëkk a tijji boîte boobu di gaynde club club boobu njëkk na ma fa yóbbu na ma kaay nga xool boîte bi xam nga tey kon bu demee ba ne il faut nga jël benn bés bés boo xam ne sagare xam ma sargalee ma ko ma kontaan ci lool muy sama xarit nag di ku baax tey Doudou Fall ku ne Doudou tey kuy ñëw tey ku daj ak moom sekkeex na yow teraanga hmm? kon bés boobu ñu jël ko ko jagleel ko ko loolu rek la mën a ne du leneen jàmm loolu sargal boobu li kalal yëpp jàmm la ak kóllëre ah moo tax bés boobu nag di la 28 novembre nag di amee fële ca gaynde ñu ngi ciy woo ñëpp sama mbokk artistes yeeg ah bu jigéen beeg bu góor bi ñu ngi ciy woo ñëpp ci woo sama mbokk géwél yëpp am di jàmm yeeg ñëpp ci bés bi ndax bés boobu daal dafa war a taaru. Mhm. actuellement nii ñi nga xam soppe yi nga xam si ni bëgg nañu ñëw euh, ànd ak Baye Demba euh, fële nga xam ne moom mooy gaynde le 28 est-ce que bii fan fan lañ ko mën a ame waaye billet tey ku ko bëgg am dangay ñëw fii ci Fass hmm? numéro bi ngay woote mooy 520 24 43 moo ci bëggee am ñëwal fi ndax entrée bi VIP 5000 la 10 mille ku ci bëgg a am nag ah da ngay ñëw fii ci Fass numéro bi ma joxe muy 520 24 43. li ma lay li ma lay mën ci wax daal buñ ci duggee bisimilah rahmaani rahim ca bés ba. Hmm, baax na di nga dégg loo mosut a dégg de. waaw surprise yu garaaw ndax mbay mbay jëy dafa war a taxaw ci kanam maak moom ñuy pelloo waaw lépp ay wax la rek lépp ay wax la waaw mais nag sama waa ji Papa Laay nit ku baax taalibe Serigne Babacar Sy tax dafay taalibe seex may taalibe seex mu nit ku baax nag yàgg def teraanga di def ci biir ak sutura ndax nit ki lépp looy def rek boroom bi dafa soxla loolu lépp ci sutura la ba pare du nit kuy wanewu moom boo ko gisee sax xama du bëgg sax di feeñ hmm? kee ñaanal daal gudd fan ak wér gu yaram bés bi daal yëfam la moom ak doomu ndeyam Kara Moto yàlla na jàmm yàgg daal suñu réew hmm. dire kon ñu ngi si invité ñëpp ah faaye a nekk rek même ñu nekk si diaspora bi sa dégg numéro bi mën ngeen cee jàpp ah bu ngeen mënut a ñëw mais nekk euh, a dem ngeen feere ko ah, ndax bàyyi dem ba naa ne bu ñëwee sañ sañ yëngu ngéwal yëngu te loolu yaakaar naa ne euh, maanaam ku fa dëgg SBT moom ak gars yi yëpp invité daal ñëpp ci biir ñu ñëw ah, mu nekk événement boo xam si ne macha ndax covid bi comme ni ko waxee doxee ah, te sañ-sañ moom yaakaar naa ne buñ duggee foofu noonu war nañ faa def dara loo xam si ni macha allah àdduna nga këpp dañ yëg ne am na am na lu xewoon la 28 léegi ñu ñu jeexalee point bu ndaw rek mooy coow li dégg nga ko fan yi diggante eh, Wally Seck eh, Sarak ak ki nga moom mooy Sidi Diop en tant que eh, seen mag te nga jiitu leen ci affaire bi te fekk fi lu bëri nag ci ci tibbante tànk bi yu mel ci milieu bi ndax seen milieu bi bàyyi dafa doy waar naka nga ko mën a jàngate waaw milieu bi moom milieu bi moom yaa ma gën a xam xam li nay moom soo biis moom boo ci duggee moom xam nga xamal fooy teg sa tànk rek dugg ceeg ful bañ ku la yeb affaire bi loolu rek méttiwul hmm? mais tey li ci am ni mënul ñàkk ndax ñaari kaay ci mbër yi sax day am dañuy mbëkkante muy di Diop di Waly Seck ndax ñoom ñëpp ay doomu sénégalais la na ah. ndax senegaal moom drapeau bi vert jaune rouge la étoile ci digg bi nanu ñaan jàmm ndax tey ndax tey sunu maam yi fi tëdd tey hmm, tey fii réewum jàmm la mais comme soo bis bi ñu ne tey Wally mi ngi tëgg ci kambale Sidy Diop mi ngi tëgg ci kambale te teewul ku su nekk sa wërsëg yaa ngi kay lekk ah li am nag li am nii tey dañuy ñaan yàlla rek man Baye Demba maa ngi ñaan yàlla borom bi sotti ci ndox mu sedd guy ba ñoom ñaar ñu mën a dajaloo waat ndax ñoo bokk seen bi ñoo bokk li ñuy def ah. tey bu ndam li amee ñun ñëpp koy bokk maa ngi ñaanal nag Sidi xam nga mu continuer Wally Seck tamit mu continuer carrière yaram ah dañuy ñu nekk ci ginnaaw tamit ñu xam fi ñu teg seen tànk quoi affaire baa ngi noonu yàlla neen yàlla defal jàmm yàlla neen yàlla defal jàmm yàlla neen yàlla defal jàmm ndax ñoom ñëpp samay xarit lañu yeah. nekk ñoo xam ne kenn ku si nekk am nga ak moom ay relation est-ce que bi affaire bi amee ba baax léegi diggante nga ak tey bi mu amee tey tey ah tey ñoom ñaar mën naa ne maa ngi ciy xam nga maa ngi ciy dégganteeg maa ngi ciy dégganteeg Sidi mais bu ci dégganteeg Wally tamit jàmm rek laa ciy dox tey Sidi Diop ndaw la ne ci yoonam Wally moo ko jiitu ci aar bi kon tey euh, ñi jiitu daal xam nañ jàppale seeni rak tey ñoom ñaar kenn amu ci xolu kiñaan hmm? ñoo bokk li ñuy def dox jàmm moom bu ci amee moom ñun sunu puso rek la ñu yor sunu puso rek la ñuy la ñu yor di ñaw te lépp ci jàmm lay doon yàlla na jàmm yàgg daal foofu diggante boobu yàlla na fa jàmm yàgg. bu fekkee ne ñu ngi koy gis ci milieu bi fan la mën a yóbbu culture réew mi ëllëg. waaw non non am moom lii buy am moom musique bi musique bi mën naa ni moom day dellu ginnaaw nanu mooti yi rek. nanu moytu te liggéey rek mbalax mu neex fans yi bëggee ndax fans yi ñoom lan am xale yu ndaw yi tey dañuy jël ci ñoom référence tey bu nu gisee tey seen makk yi def nii rek xam nga dañ ciy topp kon nañuy moytu yenn yooyu tey defar bañ dugg ci yenn daal nañ liggéey rek mu neex. tey boo amoon booy jox Sidy Diop Sarax lan lay doon. jox mooy Sidy mooy liggéey rek. tey tey moytu li ne ci ginnaaw xam nga tey moytu yenn yi ndax musique dafa ndax musique ndax musique tey ñii dañuy bëgg ñiy bañ mënul ñàkk ci musique ñii dañuy bëgg ñiy bañ mais mi ngi ci yoonam xale la mi ngi ci yoonam xam nga. nekk ci tey comme ñaar artistes ni ngi ak ni ñu nekk sa rakk ak ni ngeen ni nga amee ni nga amee benn déggoo bi est que tey euh, mënoo woon tëb rek nga ne yi carrément waal mooy sa mag nag jiitu nga topp si ginnaawam te nga lii ak mën ah. ah waaw loolu loolu loolu loolu loolu tey tey mooy li ma lay wax rek ñun ñun danoo yàgg ci aar tey xam nga Super Étoile tey ñoom ñooy monument nanu xool ci ñooñu rek nanu xool ci Super rek nanu xool ci Youssou Madjiguène xool ci coon Ismaïla Lo Baaba Maal xam nga. Aline Mender Papa Diouf bari na nan ko xool foofu rek waaw santaat la bu baax gërëm la ah, si sa temps bi nga xam si ne may nga ñu ko ah, xaj na sax ah, li muy wax jël nañ sa temps lu kii parce que lu kii lañ bëggoon ñëw rek waxtaane bi di waxaat le 28 la fële ca Gaynde Club di ci invité ñëpp di woo Sénégal yëpp waaye mën a nekk ci biir réew mi rawat na nekk bitim réew nag ngeen jàpp ci bu baax a baax ndax numéro téléphone bi incha allah danañ ko affiché suufu écran bi ngeen mën cee woote ah ki nga nekk fexe sa gaal tëmb sa kaw te bañ a diig incha kenn ku si nekk li nga bëgg suñu borom defal la ko ci barke yonent sa salaa salaam Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñu bàyyi la nga tàggu mbokki internet yi waaw li may tàggu nag mooy maa ngi jaale tamit suñu mbokk yi nga xam ni ñoo des si géej gi hmm? ndax metti na ko dafa metti tey tey li may li may wax naan boroom karaw gu ñuul tey ñàkkul dara mais maa leen di ñaan daal même bu ñuy dem nan ko jaarale ci xam nga nan ko jaar ko jaarale ci yoon rek ndax ndax tey tey bu ñuy gis seen moroom mi di daan doole am na si ñoo xam ne tey seen kër ñoo ko yor day diis lool te ñafeket la ñu doon ñafe rek moo leen ci dugal ah ñafe rek moo leen ci dugal ak bëgg lu baax di leen ñaanal boroom bi xaar leen àjjana te ambassade yi bu ñu tijjee ngir yàlla. dañuy jox gaa yi ci visa yi waaw mi ngi noonu daal kàddu baa ngi noonu réew mi yàlla na fi jàmm yàgg di jox ñëpp rendez-vous le 28 novembre fële ca gaynde incha allah mi ngi noonu SBT Média la seen émission na réer la ñu jaral ki nga xam naa du ñàkk incha allah wee xam naa passé ñëwaat waxtaane leneen loo xam ne parce que fi doon nii bëggun koo ah, moo tax ñu wax ci comme ni ko waxee ni actualité bi ak yu mel noonu laal ci tuuti ñëw ci an anéra si digganteem ak li nga xam moom mooy waa groupe jàmm den jox dig dajee ak beneen émission ak beneen daanaan ci SBT Média ji jaajëfal ah, place bu yanj bi nga xam si nii ah, mooy jaay téléphone yeeg mi ngi noonu téléphone yu baax yi ku bëgg téléphone baax ak accessoire téléphone yëpp ah mën nañ ñëw fii ci nga xam moom moo fii Fass Colobane ah. incha allah dee jox dig daje ak beneen invité ndaanaan jërëjëf.